leen di jaajëfal mbokk internet ci ànd bi ngeen a ak ñun ci sans limite ak suñu plateforme digitale yëpp di leen si uh, dalal jàmm alors tey nag ñu ngi ci Wakaam amaat plaisir jàkkaarloo ki nga xamante moom um, uh, yi nga moom fa amoon ginnaaw bi nga xamante yenn ci takk der wàcc nañ fa daal di rek génnee lu toll 79 famille ci seen i yi nga xamante nii dëkkoon nañ fa uh, ci giiru fanweeri at wala sax lu ko ëpp ñu toog kenn koo xamante ne nag moom bokk na ci euh, famille boobu noonu ngir def rek suivi de cas par rapport ak li nga xamante ne moom moo fa jotoon a xew euh, jour boobu ak tey jii nii euh, naka rek lañu ñu fas yéene def pour récupérer waat seen i habitation yooyu monsieur Loum ñu bàyyi la nga nuyonteeg internet yi laata ñu tàmbalee waxtaan wi. waaw maa ngi gërëm ñëpp internet yi ci action bi ngeen mu ñaawlu ci yéen. loolu ngeen wane ko sur le plan national international ñaawlu sa boobu kaw ñaaw tëf la boo xam ne vraiment kenn mësu ko gis kenn mësu ko foog ci Sénégal waaw di ay militaire di génn seen nattango ci suuf suuf kese suuf waaw loo xam ne dañ ñee dañ fa déclaré treize mille euh, treize hectares treize hectares la environ da de léegi treize hectares yooyu ñun ñoo fa dëkkoon bi jaax mais le droit de préemption existe ñun ñoo fa bañ déggee ne ñu ngi koy jaay ñun ci lañ demandé état pour ñu jox ñu ko léegi pour ñu jox ñu suñu kër yi suñu kër yi ak cour la loolu kese nu kër gi toll ñu jox la cour ba après mu jaax comme nañu def ballon même titre foncier avec les ballon mooy pour douanier yi dëkk policier ASECNA yeeg euh, waa ASECNA seen bopp ñoo bokk même titre foncier bi ñu mujjanteel ko douanier yi lañ ko jëlul jox leen ko euh, seen kër yi ñoom seen parti par seen directeur douane euh, dama koy wax di ko di ko di ko gërëm ci que c'est un homme vraiment euh, euh, digne da nga un grand chef muy Matar Cissé mm-hmm. ah aujourd'hui ministre de l'énergie moo nekkoon directeur douane taxaw ci loolu jox leen ko mm-hmm. waaw ñun nag dafa métti suñ côté ñëw suñ chef yi ñoom ñu def tam euh, nu mu tudd beneen organisation avec les ministres de l'État way mm-hmm. ñu pour ñu mën a jël affaire bi jël ko man nag ñu ma gën a comme naa mooy le fait que état du Sénégal def na ni kat bi état de lieu bi def ni kat mu jox ko domaine mu jox ko cadastre et charge néant à partir du Sénégal mais ñu def nikat bi def approbation bâtiment yi loolu yëpp ñoom ñu ngi toog état du Sénégal def loolu du ñun état moo ñu ko téye parce bu ñëwoon nañu gën la dañuy gën dégg nga mais dañuy wax ne seen droit de préemption loolu yoon la moo tax ñu toog bañ def liggéey boobu yëpp ci kër yi ku ci nekk ñu délimiter la sa kër xam ne lan moo si defoon Euh, organisation autorisation de lotir ñu envoyé ko euh, le directeur DG de l'urbanisme et de l'habitat dégg nga et de l'architecture Omar Sow mu war ko def depuis le 31 décembre 2019 donc janvier loolu waroon na jeex ba ñu def ko CCOD séddale ko parce que loolu rek moo ci desoon mu bañ a du ko signé il a refusé donc c'est pourquoi je dis que le ministre de l'urbanisme est complice parce que ñoom nee na dañoo defoon. notamment Abdou Karim Fofana. Abdou Karim Fofana le ministre de l'urbanisme pour man avec son Dédala ils sont complices parce que lui c'est le patron là-bas. il était au courant. pourquoi moom lu doon lutti boobu defuñ ko delloo ko directeur domaine mu def session day mu jeex ñu jox ñu seen kër yi ah dégg nga 445 parcelles mu des ñaata. lépp lu gars yi di wax du dëgg c' est le l'état de lieu bi 445 parcelles moom la. Mm-hmm. j'ai le plan après nga jël caméra bi nga jëlaat ko joxoon naa leen ko la dernière fois. Mm-hmm. dégg nga la léegi nag euh, domaine Loutir 436 parcelles après ja état du Sénégal même quand militaire bi président wax na sax barki dem ne eh, armée amul benn nu mu koy waxati. Euh, nan nan lañ ko waxati ci tubaab ah moo armée jox moo. waa n'a pas le pouvoir des des des kii kër yeeg yooyu moomu si dara camp yeeg yëpp moomu état moom moom lépp patrimoine la l'armée n'a pas de patrimoine dégg nga état moom moom lépp état moom moom lépp. donc coow li muy rëy rëy du état moom moo leen génne waaye armée moo ñëw. Ah, am sa tax armée di ñëw. armée dafa xoolaat ko. vingt et un mille mm-hmm. pour ne cent quarante parcelles loolu la jënd deux mille huit dégg de. léegi nag bu ko jëndee en 2008 <laughs> mais yaa xam bu soxlaa loolu ah ñun tam ñu demandé ñun tam ne kër yi moom ñu jël ko parce que mbaay bi jeex na gars yi dañ koy séddoo. Mm-hmm. duñu laajte ñu suñu kër la sees ñoom état moo xam état nangul la droit de ñu boole si nikat bi def ko lépp tout complet ah. Mm-hmm. tous les infrastructures xam nga les les les les techniques et administratives lépp def nañ ko ba mu mat sëkk sëkk sëkk état bi def na ko. Mm-hmm. donc en retournement. ba nga xam ne session day rek moo ci des mais lu tax état bi di tëb di mu war a ñëw avec une des centaines de gendarmes pour les 79 familles qui sont des chefs militaires parce que nous aussi on est de grands monsieur le président Macky Sall pour nekk lañ ko yóbbu ci sur les avions Pakar les hélicoptères euh, de 19 places les EMI pour nekk la dem mm-hmm. ñun ñoo nekkoon patron avion yi ak patron hélicoptère yi ñun ñoo suñu defoon liggéey bu bon wala xamuñu lu ñuy def toujours ñoom day nañ bu yàgg. donc on a travaillé avec cœur euh, ardeur et civisme dans le travail. kenn mu suñu reproché si dara. macha allah am na solo foofu laa bëgg a dugalaatee beneen question bi sax mooy journée bi nga xamante ne ñëw nañ pour génnee leen seen i kër mooy takk der yooyu noonu naka lañ ñëwee ci yéen. mais dañuy ñëw dëkk dañuy génn suñu doom yi génn di xeex ñoom ne du nga fi dugg suñu am mérite du lii moom la ñu génne fii. dégg nga ñu nekk ñoom pendant jusqu'à midi de huit heures jusqu'à midi moins. alors ah, voilà yokk ay nit ba on dit cent gendarmes ak euh, deux cent euh, soldats deux cent militaires muy neuf cent personnes te amoon na ay réserve loolu lu ko si jar. pourquoi cette intervention là on n'est pas des djihadistes on est des Sénégalais puissants on est des chefs militaires qui ont des gens qui ont travaillé pour le pays. sàcc ñu fenn ñu naafeq ñu. lu tax ñoom ñuy def loolu au lieu de parler au directeur domaine comme ko lu mu wax ne moom la jand mais na dem ci état bu mu wax na ko la ma janoon lii la mais donc bu bàyyi loolu léegi ne léegi 21 mai ka waxtu ko demaat ba mu yàgg muy wax avec son directeur de DIRPA naan dañ leen ko joxoon à titre onéreux mais c'est faux attitude honneur en 2018 mais fekk na boobu l' état Sénégal d' na avec euh, son excellence Mangara qui était le ministre la allamiable avec l' ancien chef euh, Cheikh Gueye papier yaa ngi fii ma wax la ko pour ñu waxtaan juba def nañ ko ah, ni ñu jox di maître Dioma Ndiaye mu suspendu tribunal bi euh, la cour suprême comme à cour d' appel mu loolu lu sax ñoom ñu ñëw di déshabiller loolu encore une grande faute ah, dégg en douce en doute avec des complicités yoo xam ne muy yàggaguñ boobu dana la wax seen tur. wala ñu nekk ci état ñu xam ne lépp ah parce que dañuy dem ak discipline dañu ñaan président de la république mu moytu ñooñu seen wax. seen wax surtout le ministre des forces armées qui a parlé aujourd'hui di wax loo xam ne moom juriste la et il a une bonne éducation. Ah, xam ne fa mu dëkk dañ ko yar. waaw ah, wala ci loo xam ne ay ay kilo na jël dossier mu xool ko. c'est un mu xam. ah war a war a conseiller par exemple ne ko lii la mais sortie des sénégalais rentrée des sénégalais di wax naan armée lañ ko jox ak comme ça non non non non pas dans ce débat on est dans le débat de la vérité. ñu mm-hmm. fi nekk dañ ko moom. Mm-hmm. le droit des préemptions moo leen ko jox. Mm-hmm. loolu moom ni ñu ko xam. yaakaar naa ne wax nga ko sax mooy que ne ci débat wu dëgg lañ nekk débat de vérité. donc d'autant euh, nga wax ñu exactement lan nga yaakaar ne moom moo ñëw ci soob bi lan nga yaakaar ne. moom la ñenn ñi di def pour euh, euh, dëgg-dëgg génnee leen ci fi nga xamante ne nii moom ngeen fa dëkkoon pendant 30 ans. waaw loolu la ñuy ñaan ba léegi parce que du moment que génn nañu avec ces la am na ñoo xam mu gën am ñoo xam ne amuñu. amuñu ah c'est des retraités qui sont faibles maintenant malades ay cinquante soixante et quelques années soixante quatre soixante cinq parce que moi j'ai soixante quatre ans donc man ne am na ñoo xam ñoo ma gën a ancien donc yaa am na ay soixante dix ans des choses comme ça donc ñooñu amatuñu respect dignité gars armée ñëw taxaw de leen génn surtout seen chef bi état major chef état major bi nga xam ne ñoo bokkoon nekk pendant combien d'années déwén mu day dem retraite mois de l'année prochaine 2021 ci la war a dem retraite mais pourquoi moom muy nangu loolu nga xam ne après la retraite c'est la mort qu'on attend jéem góorgóorlu bàyyi lu ñu amee suñu doom yi ñu am lu ñu liggéey avec honnêteté ah c'est loolu moo métti pourquoi les gens les chefs d'état-major yu retraite sax ñoom ñu xam ñu ñoom ah joguñu ci wax ci affaire bi en haut pour xamal ñu ñu jox ñu ci kër nu Matar Cissé def euh, jox douanier bi ah loolu dafa métti dafa métti ñoo ñëpp suñu kilifa la ñu on était dans de bons termes on a travaillé bien Mm. Sinon, ils n'allaient pas être des généraux. waaw mm. ah, si on travaille mal non non non. bëgg itam nga ñëw ci euh, sooru 79 familles yi nga xamante ne moom lañu ñu expulsé foofu tey jii ñoom anañu mais am na ñoo xam ne seen bagage dañ ko si dispersé y a des collègues am na ci gendarme yi doon ñëw sax am na ñoo xam ne dañu dañoo c'est malgré eux dañuy ñëw sax di able di wut di jàppale gars yi après en ñëw ba ñibbee dinañ wutloo fu ñu si seen bagage seen kii des choses comme ça en coulisses ils ne veulent pas le dire leur nom. ah mm-hmm. dinañ jàppale ñuy bagages yi éparpillés yi yàqu. des mm-hmm. choses comme ça borom télé yi yàqu frigo yi congélateur yi yàqu. seen mm-hmm. euh, seen bibliothèque yi yàqu. yi tooy def kenn xamul lan la tout mélangé. pourquoi loolu c' est man nan la ko mën a c'est mal. Mm-hmm. c'est sauvage. Euh, action boobu. jot nañu aussi intervention jot nañu dégg itam intervention bi nga xamante ne moom la maire bu Mermoz notamment Barthélémy Dias def daal di yóbbu ñenn ci famille yi ci centre socioculturel yi euh, là aussi euh, bëgg nañ nga ñëwaatal ñu si. j'ai vraiment j'ai applaudi ce que euh, Barthélémy Dias a fait c'est un grand monsieur Barthélémy Dias nit baax ak noonu vrai je dis bien il est très bien ba pour mu yem. Barthélemy yàlla na ko yàlla may li nga xam ne moom la bëgg. Mm-hmm. waaw waaw vraiment lu mu bëgg a njabootam lu mu bëgg c'est un vrai africain. Mm-hmm. sans le civisme il a ça c'est un africain un non non non un bon africain nit ku jub a ngi noonu nit ku baax a ngi am yërmande. Mm-hmm. waaw moo def loolu moom Barthélemy. merci Barthélemy je vous salue. ci action bi nga def. jërëjëf Barthélemy Dias. Euh, au niveau de Ouakam aussi ñu gis na am nañ maire moom lan moo nekkoon taxawaayam. waaw maire man gisuma daan daan naa ko woo sax ba lii amagul mais daana ma ko jot téléphone oui c'était pour l'alerter parce que amoon information bi oui mais mënuñ ko woon gis ñu man gisuma ko de te il a mon numéro téléphone woo ma ba léegi donc na laa mën a wax lu mu wax dara parce que gisuma ko ñëwul ñëwul y a pas de problème mhm. waaw ñi ngi di ñaan nag euh, président de République mu xam dëggantaan ce qui se passe le Sénégal c'est un mhm. mu xam en réalité yaa jëf dëgg Eh, te woo suñu avocat yi ñu xamal ko ñoom maître Dioba Ndiaye eh, ñi nga xam ne ñu ak maître Cissé Alioune Cissé ñu yore affaire bi eh, tribunal ci ñun ñu woo ñu xam na woo aussi directeur domaine pourquoi il passe son temps pour faire son travail mm-hmm. avec la la directrice du CARAS pourquoi ñu nekkaade ko pourquoi ñu ñu ñu jox ñu ku nekk ci sa portion kër sa kër ak un 3 mètres 4 mètres de cour mm-hmm. loolu moo nekk ci kii mm-hmm. kër yu mag yi nag kër yu mag la mais da nga am parce que ñoom dañ ko bàyyoon waa par ennemi bi ñu nekk ak jaane ak yooyu comme ça par mm-hmm. euh, ah, jël seen tabax seen kër des su comme ça. Mm-hmm. bàyyi ñun fii pour ñu jekk kàmb di liggéey guddi ak bëccëg loolu moo métti. Mm-hmm. léegi nag mu neex y' a plus de truc suuf fii am na valeur armée déplacé na woon après mu métti. am na lu mu nag. mooy le fait que l' de l' air sénégalaise ah fii. ah da di di seetaan tubaab bi ñoom ñu def c'est préparé wu dem tabax jas ba pare déplacé wu dem nekk foofu définitivement ah dans notre bijou de l'aéroport hmm. ñoom ñu toog fii da nga septembre major toog fii di di di pour di génne ay ay ses collègues yi nga xam ne ñoo doon liggéey foofu ses compatriotes hmm. ñoo doon liggéey armée l'air ba tax moom mu nekk lu mu nekk ni hmm. ah léegi aujourd'hui eh, ñu toog fii ñu bàyyi tubaab yi nekk fële di gérer suñu suñu aéroport ñoom ñu toog fii di wut suuf Mm-hmm. Et puis c'est déclassé. Mm-hmm. C'est déclassé depuis alors. Mm-hmm. Même par A ou B, ils sont à Yes, par A ou B. Voilà, ça c'est vide. Donc, le toit vidé, non le C'est des hectares et des hectares. Mais non comme ça. Mais nous, euh, ils préparent nous faire sortir brutalement, hein, comme des, des, comme des non je ne peux pas comprendre qualifier euh, situation boobu comme ça. yaakaar yaakaar naa ni leeral li am na solo ñu bëggoon a xam tamit euh, qu'en est de la réaction de Maître Sidiki Kaba yaakaar naa ni li ñu ko reproché euh, mooy que ni moom jotul xam dëggantaan naka la mbir mi demee. daa tamit tranché mais xamul nekk pour man parce que bu ma déggee mu wax conférence ba naan président Macky Sall jox na général Birame Diop. non lu appartient état du Sénégal c'est le ministre hein, le ministre Ablaï Daoud Diallo, c'est le ministre des Finances, ministre du Budget, avec le directeur, les DG domaine, euh, M. Nias, avec euh, euh, euh Mamboy Diao, hein, le directeur du domaine national. ñoom ñoo jël war a taxu wax nii comme ça wax président bi lii na la demee na la demee mais ci biir wax ñuy wax loo xam ne président bi waxagul sax il a pris ça en main il n'a pas encore dit son mot ou bien yow journaliste dégg nga ne président bi wax na non président du patrimoine militaire amul patrimoine da nga def fii état du Sénégal moo ko moom ñaar yooyu wax na ko mais waxagul situation bi nan la koy jugé on attend que mu intégré ñu suñu kër yi y a des rumeurs naan jox ne huit cent millions euh, pour nangam pour ñun des choses comme ça huit cent millions gars yi jël di wax na ministère bi pour que mu tabaxal ñu ay ay kër des choses comme ça déedéet son projet-là est différent de notre projet on peut sortir dans le même site les Sénégalais di dugalal yeneen Sénégalais ñun ñoo moom suñu kër yi nañu ko jox droit de préemption la léegi les les 800 millions là ñu ko kër yi gars yi hmm. mais ñu am donc si nous si je comprends bien. ñu reloger mais ñu delloo leen seen dëkkuwaay. ñun nañu delloo suñu dëkkuwaay yi nekk c'est la loi qui nous donne ça. Hmm. dégg c'est appartient état du Sénégal ñëpp nekk c'est le droit de préemption maa ngi woo tous les juristes du Sénégal ñu jàppale ñu ci loolu wax président bi xamal ko ne ko lii la ñeneen groupe boobu di ko topp pour di wax noonu comme ça li ñuy wax ñoom ñëpp seen intérêt la ñuy defee du dëgg. yaa ngi ko dégg ministère du bâtiment ba ba ma fa demee gis DG bi. mais je ce que m'avait dit j'ai seen 80 milliards yi 81 milliards yi ñu joxoon au mois de novembre comme ça pour euh, Promoville bi. ñu bëgg a considérer Terme Sud euh, comme bidonville ne bon alors le projet de du signer le droit de lotir là ah. da nga bëgg def projet ne pour ñu tabaxal ñu pour ñu euh, benn cité à côté jël deux états pour tabaxal ñu ñu leen loolu c'est pas votre problème le directeur domaine moo des loolu il a donné le droit de avec le plans yow abi observation rek ngay joxe jeex na après directeur domaine moo xam ne mu rek ak lépp loolu moom def liggéey boo xam ne santuñu ko ko wala légalement ci professionnellement ci son cahier de charge mm-hmm. mais il est Mambo Diaw et c'est un intellectuel mm-hmm. Eh, donc du def loo xam ne mi ngi noonu ñu toog président bi son son directeur DG ak son ministre la toog du ko seetaan deux ans xam nga un an après mu war a eh, indi ay problème aujourd'hui en un tournement pour ñu indi ay gendarme ñu génn ñu sànq que ñoom ñu yëkk loolu mhm. non c'est pas bon mhm. les domaines n'étaient pas au courant et je sais que Abdoulaye Daouda Diallo un grand monsieur dégg ko nu mu demee mhm. waaw lu bon lii am léegi nag ñu ngi woo Abdoulaye Daouda Diallo un grand intellectuel comme lui en tant que ministre budget dégg nga bu mu ñoom Karim Fofana yooyu lu ñuy wax nañuy jox suñu kër yi dégg nga à partir d'un CCOD dégg nga ku si nekk nga jël sa kër le reste des parcelles ñu jël ko maa ngi dégg ñu naan euh, c'est xam nga euh, euh, dañu jël nu mu ay deux cent parcelles xam nga trois moom la de jours comme ça quatre cent quarante cinq parcelles hmm. moo fa nekk moo nekk plan bi waaw ñu naan dafa piétiner le camp nan ma leer foofu yëpp état moo ko moo ko moom waaw moo ay jalousie man léegi nag damay wax ne c'est la jalousie professionnelle la méchanceté waaw te c'est kilifa du soxor kilifa warul am loolu jikko yooyu ko am ah. mm-hmm. on doit éduquer jikk les responsables diw par les sociologues comme <laughs> ñeneen ñu di leen jox seen place mais pas n'importe qui mm-hmm. waaw ah, loolu nag yàq na l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mhm. Ah. Eh mais au-delà de tout ça monsieur Loum tey jii nii yaakaar naa ne 79 yi nga xamante ne moom ngeen euh, formé tey jii ndax am ngeen plan d'action ngir euh, mën a euh, revendiquer li nga xamante ne moom mooy seen droit. waaw ñu ngi koy wax nag ba léegi ñu ngi attiré oh, ñi nga xam ñoo ñu jàppale ba ñëw ba fii muy kii kii Tine président Tine mhm. ngi koy woowaat di woowaat encore NMC national. Euh, Amnesty International monsieur Gassama. di woon encore président bi avec ses bons conseillers de laa mhm. parce que pas boobu mauvais conseil. Mhm. des bons conseils kii ñu wax ko dëgg mu xam ne fii ñun ñoo fi dëgg le plan a été déjà fait ak euh, nikate dégg nga lu ñu nikate nag mooy dëgg moo fa nekk. Mhm. nañu jox suñu kër yi la si des moom mu jël. waaw donc qui sont là c'est des citoyens sénégalais. da nga ñu comme nañ joxee policiers yi ak douaniers yi dans le même titre foncier nañu jox seen kër yi. Mm-hmm. waaw ñoom bu ñu xamul ni ñu ko joxee mu laaj Matar Cissé nan la def ak ñoom. Mm-hmm. c'est son c'est son ministre. Mm-hmm. waaw mu xam. mais jënduñu pour séddoo le reste wala je sais pas des projets non non non non kooku kooku rafetul ci Sénégal. ak bu ñu toll dans notre démocratie loolu baaxul. ñu bàyyi la rek nga joxe say dernier mot. waaw su ma dernier mot mooy daal toujours damay woote walu walu laay wootee. waaw parce que gars yi ñoom foog kilifa diine yeeg ñëpp la woo pour ñu jàppale ñu ci lii nii Macky Sall ñu delloo ñu suñu kër yi et nekk ñii soixante dix ans soixante douze ans ñu ngi feebar ñu feebar commencé feebar ñu ngi feebara feebar la ñuy def ni même waa ju décédé nii nii tey jii démb kër démb nii comme ça lacrymogène moo yokk affaire am ah moo ko yokk ah di armée di wax naan dafa cancer dafa nii non bu ñu dugg ci bilan euh, médical soo ko c'est c'est une faute oui loolu baaxul euh, du donc ñu daal on est des pauvres la ñuy état considéré des non non non de n'importe quoi va pas accepter on est des te suñu mbokk yi dañoo mbokk yu pur sang lañ bokk fii ci Sénégal waaw pur sang on est des nu noble vrai waaw noble am jom waaw di liggéey ci jom yar suñu doomu ci jom waaw waaw on est là on n'est pas pour wax dëgg yàlla li nga xam ne moom la def man daal Macky Sall woo naa ko kilifa diine yi les juristes euh, sénégal ñu ñu mën a jàngale ñu wallu ñoom suñu awokaay yi joom ñoom jooma njaay ñu taxaw ñu régler problème bi ci di kaba vous êtes juriste voilà approchez de juris bala ngay wax président bi leneen ak leneen waaw président bi nag moom waxagul dara moo jël affaire bi en mais dina encore rien dit ñoom ñooy wax moo Karim Fofana seen seen wàllu bopp naan damay tabaxal damay deret par exemple la ñu déglu te ñu ngi koy wax ne ko lii lañ bëgg les députés aussi bëgg naa ñoom itam ñu jàpp si am ñu si dégg ñoom Farba Ngom et consort c' est des c' est des apéristes ñoom les présidents parlementaires ñu woo mu xool affaire bi aussi dégg nga mu woo ñu jox ñu suñu kër yi waaw loolu bëgg naa ko aussi assemblée nationale taxaw si waaw parce que c' est très sérieux donc j' appelle tout le monde à la vérité ñu jox ñu suñu kër yi on est des citoyens sénégalais des nobles